billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu monsieur le président de la république yàgg mbooleem kilifa yi ngay àndal ñu ngi leen di dalal jàmm di leen nuyu di leen sant te am mbégte ci seen teewaay li ma daan wax nag ci meeting bariwut waaye tey dinaa wax ndax wax dafa jot kon mënees na ñàkk wax monsieur le président de la république ñëw ma fii nag ci fii di dëkkub Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di dëkkub maam Cheikh Ibrahima Fall te nga jóge fa léegi di dëkkub maam Cheikh Anta di dëkkub maam Diarra maam Mor Diarra di dëkkub Cheikh Ibrahima Faty mi nga xamante ne bii moom la Serigne Touba déggoon yoon wi fii fi la Cheikh Mouhamadou Moustapha ganee àdduna fii ci Darou Salaam Cheikh Mouhamadou Fadal ganee fi àdduna Serigne Mouhamadou Lamine ganee fi àdduna ak mbooleem njabootu Serigne Touba gépp kon ñi ngi lay daal fii ci Touba di la xamal ne ñaari kaddu rek laa lay wax kaddu bu mujj moo di le 24 février daañu la fal incha allah rabbi kaddu bu njëkk bi moo di balaa booba daañu la sargal daañu la sargal ànd ko ak waa Sénégal ndax liggéey bu rëy bi nga liggéey ci réew mi sargal la ànd ko ak baykat yi ndax PUDC. Touba sargal la ndax carte égalité des chances sargal la ndax cent vingt milliards bourse familiale sargal la ndax yaay candidat bi gën yaa man fuuf te la may quatre février di nga leen daaneel bu sama yàlla te fii ci Touba parce que yéen nga gañe ko lan rek lañ lay wax mooy li suñu wajur wax tey di sa wajur di sa sëriñ di sa xarit di Cheikh Mouhamadou Mountakha te li mu wax mu doon ko ca muy jëloon woon di Serigne Saliou ma nga xam ne léppam nga wóor foog naa Moustapha mii seere la si Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ku nekk gis na fi nga jaaroon moomu Cheikh Sidi Mokhtar ku nekk gis na fi nga jaaroon moomu kon dégg na la Serigne Touba. Ablaye Mbaye Pekh doo fanaan biti kon incha allah le 24 na ñëpp voté le président Macky Sall.